parce que loolu la ñuy fi taajee pour ñu défendre patrimoine Dakar ñi ngi liggéey lu ñu mën waaye bu ñu demee nag ba ñuy attaqué suñuy alal di ko jël par force di ko foqati ci sama loxo ci loxo conseil municipal bi war nañoo taxaw ndax man ëllëg ak si bu ma fi jógee maire bi fi ñëw dana ne kat maire bi fi jógee moom da doon xoole ba nangu nañ lu bari ci ci patrimoine Dakar du ma ko nangu. lii nga xam ne 2014 lañ ko def Sandaga des ci ville de Dakar nga toog ba 2020 nga convoqué waat commission ne dafa ñu fàtte woon. te fàtte bi yëpp kat du lenn lu dul marché Sandaga parce que bu ñu ma ci defaloon yeneen batiment sama ne ah ñii kat te ñun li ñu wax ne dañu fàtte fàtte nañu waaye ñoom fàtte bi yëpp marché Sandaga rek la kon loolu leen intéressé loolu lañ bëgg a jël ci ville de Dakar duma ko nangu danaa xeex maa ne woon damay bokk sax daf bokkatuma comme que ville de Dakar ko moom danaa xeex ba lu ma yoon may ma xam ne loolu la ma yoon may mënoon naa def ni mu def jël sama volontaire yóbbu leen foofu jël ay nerf yi teg leen foofu ñu nekk fa di xeex bu ko defee ñu ne waaye politiciens yi ñoom de xeex politique rek seen poste yi duma ko def ndax mbas mi ku fi nekk di wax leneen wax lu dul wax nañu dimbale nit ñi nañ faju nañu respecté mesure barrières yi nañu fexe ba mbas mi génn suñu réew waxoo fi dara waxoo fi dara kon nag sàndaga man du tax nit ñi jéppi ma man fii dama fiy jóge tôt ou dama fiy jóge waaye la ma fi nekk war a gérer li may gérer dama koy gérer ba lu ma yàlla may ma jël loolu daal laa ne woon danaa ko waxtaan ak waa ndakaaru waxtaan naa conseil municipal bi looloo ma waroon pare naa ci conseil municipal bi maa ngi wax waa ndakaaru seen alal la sàndaga ñëpp ko moom ñëpp ko bokk moom Dakar dafa war a am histoire mën ngaa nekk ci dëkk boo xam ne rek lu màggat rek ñu taj doo restauré xool leen fii ngeen nekk ni xool leen ni mu jekke ah mu ngi nii dañ ko restauré dañ ko defaraat ba mu rafet gaar baa ngi nii état daf ko restauré détruire ko daf ko defaraat ba mu mel nii yànj lool man loolu laa xam bâtiment yi fi nekk muy préfecture muy gouvernance muy chambre de commerce yooyu yëpp dañ leen war a restaurer parce que bu fekkee ne pour toj la rek tabax ay immeuble waaye jam Diamniadio mooy la nouvelle ville nañ dem Diamniadio ñu tabax foofu des nouveaux bâtiments ah waaye lii fi nekk dëkk bu nekk capital bu nekk day am la vieille ville ak l'autre ville ah bu ñu bëggee ay building nañu dem génnee ko feneen waaye li fi nekk màggat ñu war koo defar mu baax nga xam ne boo ñëwee touriste bi bu ñëwee di xool dana am loo xam ne dana ko gis loo xam ne du ko gis Dubaï du ko gis Paris du ko gis New York waaye bëgg a mel ni Paris Dubaï ak New York di tabax ay immeuble rek di dem li fi nekkoon yëpp ñu rasé ko ah mel ni dañu bëgg a la mémoire ah de Dakar l'histoire de Dakar loolu man duma ko seetaan duma ko nangu loolu daal laa ne woon il faut nag ma wax ko wax ko d'abord waxtaan ak conseil municipal parce que man lu may def damay ànd ak conseil municipal bi man du ma ne man rek la déedéet damay ànd ak conseil municipal ku nekk joxe sa xalaat ñu jàpp leen yëgal ko waa Ndakaaru di wax aussi waa Ndakaaru seen yëf la seen xeex la jàppale leen ci ba vraiment Sandaga mu nekk loo xam ne ville de Dakar moo ko moom day des ci patrimoine am commencé nañ ko toj ah duma ko bàyyi noonu wax dëgg yàlla mënuma parce que moo ko bàyyi man sax danaa am lu may reproché sama bopp loolu laa ne woon dama koy wax.